un développement durable bu ñu xasee ba wàññi prix mu bañ a ci yéeg ñu def li nga xam ni moom la ñu war a def parce que au fond wàññi yi ñu fi def yëpp dañu gis ni bu ñu wàññee quelque temps après mu yéegaat commerçant yi fipp bu ko defee mu indi problème loolu nag la ñuy bañ ñun xasee bu ñu xasee ba wàññi wàññi boobu day nekk luy continuer loolu lañu ñu bëgg te développement noonu la. wax nga ko sànq ci par rapport ak loolu sax parce que bu ñu seetloo gouvernement bi fi nekkoon am nay jamono proposé woon nañu fi. wàññi teg prix mais parfois suivi bi moom mooy des dañuy gis que ne état bi day homologuer des prix mais euh, au finish prix yooyu dañuy gis ne gars yi duñ duñ duñ ko sàmm duñ ko respecté tey le gouvernement en place yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk yan mesure ngeen fas yéenee jël ba nga xamante ni ne lépp loo xam ne def ngeen ko sur le marché dana am ñu respect ko ba nga xamante ni ne du du lool euh, ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo. il faut d'abord ñu xam qui vend quoi qui est commerçant qui ne l'est pas gros bi na yam ci gros. demi gros bi na yem ci demi gros détail bi na yem ci détail lu tax nga bëgg yow nga nekk gros ba pare di jaay demi gros si suuf ngay jaay détail loolu yëpp c'est des choses à régler il y a beaucoup de contraintes yu nekk ci biir commerce yu nga xam ni bu ñu ko réglé wul on aura du mal à diminuer les prix mm-hmm. au fond fii pourtant prix yi sax euh, xëy na dañ ko deful stable stable stabilité des prix moo amul mm-hmm. dugal fii da gis ku la jaay saaku dix mille nga gis ko la ko jaayee dix huit mille cinq cent même ripaas bi nga gis ko la ko jaayee douze mille et cetera nga xam ni différence yi bokkul te pourtant c' est dans le même euh, territoire au fond loolu yëpp war nañ ko mën a réglementer les processus de réglementation yooyu fokk ñu teg ay outils ñu ko mën a assurer ay contrôle ñu ko mën a assurer bu ko defee loolu bu amee aller jusqu'à installer s'il le faut des boutiques témoins nga xam ni dana permettre nit ñi mën a respecter les prix contrainte bu ñu mën a teg pour faire respecter les prix on va le faire mais loolu boo ko defee actuellement mënoo ñëw rek nga def ko il faut des service il faut faire euh, l' évaluation diagnostique maanaam saytu la fa nekkoon xool nan la daan demee xool la fa jagul loolu yëpp dafa laaj temps temps boobu moo tax il faut au moins six mois nga mun a xam la fa nekk il faut aussi six mois pour nga mën a teg yu bees yu ko xam ni boo jëlee mesures yi rek dañ koy appliquer comme par temps foog ngeen am temps pour mën a wàññi yi nga xam ne moo di prix bi est-ce que aussi bu ngeen ñëwee sur le pouvoir aussi jotul woon ngeen jël ay mesures euh, prix yi nga xamante fekk ngeen état bi fixé ko ba pare ngeen fexe ñu sàmmoo ak moom parce que boo duggee sur le marché euh, exemple je peux prendre l'exemple de la viande le kilo yaakaar naa ne nguur gi fi nekkoon ñu ngi ko fixé woon à 3500 francs euh, boo duggee sur boo duggee sur le marché ko jaay jusqu'à réglementé ba nga xamante ni prix yi fi nekkoon état bi fixé ko dañ koy réglementé après au fur et à mesure qu'on avance nag ñu jéem a xool boo xam daal dañuy wàññi prix yooyu noonu wala nan yan politique lañ mën a teg ba daal di koy oyofal. je suis euh, en train de vous expliquer ce que vous avez dit tout de suite c'est-à-dire il faut ñu teg ay services de stabilisation des prix nga xam ni boo jëlee prix loolu rek lañ ko mën a jaayee mu am un contrôle sur le marché il faut aussi l'assentiment de la population nga xam ni yow bu ñu fixé prix temps bu fekkee ni temps nga signalé leen. de service de signalement yooyu yëpp il va falloir les mettre en place ñële euh, loolu yëpp waroon nañ ci liggéey ñun dañu waroon ñëw rek teg jéego yi dem mais loolu yëpp dañ ko deful c'est-à-dire bu fekkee ni yow dama ni ah bu ma wàccee de dama bëgg taal dem Saint-Louis yow nga démonté sama pneu mhm. bu ma wàccee il faut ma monté waat pneu bi ba mën a dem Saint-Louis soogaa taal loolu rek la au fond dafa am ay euh, sabotage yu nga xam c'est orchestré par des services yu fi nekkoon orchestré par des patrons yu xam ni il devait être euh, les superviseurs maanaam un ministre. Mhm. bu détourné problème la un DAGE bu détourné problème la yooyu yëpp il va falloir rectifier sa et fexe ba service yi di dox xam nga service mën nga ko teg. mais mhm. doxul nga xool lu tax doxul nga fexe ba mu dox. Mhm. loolu yëpp c'est des choses à faire c'est pourquoi je dit il va falloir que ñu def deux ans minimum pour mën a stabiliser tout mën a aller de l'avant et je j'ai espoir que loolu dina am. incha allah. kon daal euh, dafa mel ni ba ma déggee say kàddu da jàpp na le gouvernement bi fi nekkoon bi ñuy dem ñoom dañoo def seen kéemtulaay kattan ba sooxel fépp. balaa ñu balaa leen a bàyyi ki euh, mbir mi. Ah, en tout cas doy na kon ñu wax ci li nga xam ne moo nekk euh, aussi gouvernement boobu noonu jóge fii am nañu ay rapports yu bëri yu génn épinglé ñenn ci ñoom. am na ñenn ñoo xam ne aussi ñoo ngi leen doon tuumaal certes rapport yi laala guñ leen tey yow boo doon jàngat benn jàngat ngay am ci rapport yooyu nga xam ne OFNAC fësal na ko Cour des ak IGE. rapport yi am na. Mhm. Euh, OFNAC IGE ñoom ñëpp def nañ seen ay rapport teg am na ñu ñu épinglé mais ñu ñu épinglé nañ leen topp ca fan leen war a topp mais loolu les services yi ko war a def ñoo koy def il y a des services assermentés yu nga xam ni loolu rek mooy seen liggéey ñu fexe ba doter leen de moyens d'abord mais fexe ba ñuy def seen liggéey ni ñu ko war a defee. parce que service boo gis am na ministère bu ko coiffé ministère boobu aussi moo war a fexe ba service ba di doxal na mu war a loolu bu ñu ko defee mbir ma dina dox mais bu fekkee ni ministère ba doxul na mu war a doxee service ba du doxee na mu war a defee loolu moo indi lii am tey loolu nag il faut un rectificatif global euh, et stratégique bu nga xam ne bu ñu ko tegee dina mën a dem ba yëf yi war a jaar yoon jaar yoon fi mu ne y un déréglement dérèglement boobu dafa am un temps bu nga xam ni da koy defar ba mu taxaw ba ba nga xam ni boo euh, doxee mu dox parce que xam nga boo jubee jub nga mais da ngay jël temps wu jubal nit da ngay jël temps ça prend du temps jubbanti bi ça prend du temps loolu yëpp boo ko analyser mooy rek li ma la wax mooy service de l'État yi il faut ñu fexe ba doter leen de moyens xool la fa sooxee waaye xool ña doon def naka su dul noonu nga xam ni seen intérêt personnel lañu daan jël jiital ko bu ko defee loolu tax politique de l'État bi mu doon teg politique boobu du dox parce que politique état lu koy doxal mooy les organes mooy les services techniques services techniques yooyu am na nu ñuy demee. Mm-hmm. Euh, contrôle ba ca war amu ca ministre ba ca war am fa ay xarit am fa ay na loo am fa ay kii loolu dafay indi sooxe ci biir état. Mm-hmm. léegi loolu moo indi lii yëpp loolu nag il faut ñu rectifier à temps. léegi par rapport ak euh, kii rapport yi gis nañu président bi mu ñëwee dafa sañ dafa joxe woon ordre pour ñu fësal rapport yi fësal nañu rapport yi mais bu jamono jooju ba léegi gisaguñu aussi beneen poursuite boo xamante ni am nañ ko ci rapport yi lan di xaar. kenn du influencer cest à justice war na def liggéeyam service yam war nañ def seen liggéey ñooñu la ñuy bàyyi ñu def seen liggéey kenn du ne fekk leen diw fii ngeen jàpp ko déedéet ñun am nañu leneen lu ñu doy lu ñuy def muy fexe ba gouvernement bi dox ñi war a doxal loolu dañ leen di jox injonction am na ay ministère chargé de sax bu ko defee ñooñu. Mhm. doxal loolu. mais ñun du ñu dem directement naan leen doxal leen li mhm. comme li ñu doon def par exemple li fi amoon du fi am léegi fi ñu war a def mooy ku nekk la ko concerné nga def ko. Mm-hmm. ñun développement la ñu sant dinañ développement justice dina def la mu war a euh, bon euh, service technique yi dinañu def la ñu war a def. Mm-hmm. bu ko defee rapport yi ñu étudier leen. woo ñu war a woo dinañ leen woo il n'est pas tard nous avons fait deux mois seulement. Mm-hmm. on va les appeler moi j'ai espoir que service yooyu dinañ def seen liggéey justice bu ci waree jot dinañ ci jot jot. bu fekkee dañu war a transiger am lu ñu joxe. loolu am nañu chargé wu pour loolu am bu ko defee kenn du ko fësal aussi loolu yëpp ay stratégie la yu nga xam ni on veut mettre ça en place. pour que développement bi ñu bëgg ñu am ka loolu c'est extrêmement important. waaw kon maanaam ni ma déggee ni ngay waxee daal da damaa jàpp ne kon ñi nga xam ne ñoom jël nañu xaalis bu ñu nangoo delloo mën nañoo delloo ci sutura ñu bàyyi leen ñu dem. ñu ko fësal Diomaye Diakhar Faye wax. kon kon kon kon. Mhm. fu ñu ko def it dinañ def nañ ko fii. tey rapport yi bu ñu ñëwaatee ci parce que benn cas bi foo ma xaw ci taxaw quoi muy le cas Mame Mbaye Niang gisoon nañu mu indi woon si suite yi débat mais rapport yi nga xam ne jot nañ ko fusal amul benn bu ko ci épinglé te gisoon nañu Ousmane Sonko waxoon un rapport Prodac boo xamante ni ñu doon estimé à vingt neuf milliards tey lan moo waral rapport yi laalul Mame Mbaye Niang. rapport yi dafa épinglé Mame Mbaye Niang. comment. par de surfacturations par des choses yu nga xam ne dañ ko waroon réaliser amul. Mhm. mi ngi mel na man la jëndal costume bii ma ñëw gisuma fa costume. ana dag yi il est responsable moral attention quand tu cites les responsables nit ñi dañuy wax ni way kii deful dara non non non dangay gis koo xam ni daajam la ñuy jàpp mais daajo bu ñu ko jàppee ba def enquête dañ gis ni moom am na lu nga xam ni taqe na ko ca loolu la ñu wax c'est-à-dire quand je dis telle personne je parle du directeur mais les autres organes aussi mën nañ def lu nga xam ni ça implique la responsabilité du directeur ou du ministre loolu wax c'est-à-dire quand on dit qu'il a pris c'est ministère qui a pris c'est important dak lañ ko waxoon gisuñu dak il est responsable et la il y un détournement de deniers publics détournement boobu dafa laaj temps pour ñu jël ko te tu vas ma may Mame seetagul de hmm. demul bay set moom mooy génn naan set na mais man li ma gis gisuma lu ko set mais problème bi mooy bu ñu gisee rapport yi parce que bu ñu gisee le rapport yi nga xam ne ñoo tukkee ministre de la jeunesse comme le cas Pape Malick Ndour dañoo gis ne dañ koy épingler directement le cas Néné Fatoumata Tall idem mais le cas Mame Mbaye Niang gisuñu benn rapport bu ko épingler direct est-ce que aussi bu laale woon direct du am rapport bu ko il a bien dit et indirectement l'implication peut être directe l'implication peut être indirecte mais il faut que l'enquête suive la ci am En tout cas, c'est la personne morale. S'il y a détournement, s'il n'y a pas de DAC, il est impliqué. C'est pourquoi on parle de 29 milliards qui ont disparu. C'est extrêmement important. Et les gens ont fait des livres sur ça. Les rapports étant, il va falloir voir est-ce que les rapports sont authentiques. Est-ce qu'il ne faut pas encore creuser plus loin loolu yëpp mën na nekk parce que mun na nekk ci gouvernement. Mhm. waa ñi ñëw di def rapport def rapport bu nga xam ni peut-être impliqué wu la carrément mais au fond bu ñu xoolee yow. vu ton train de vie vu li ngay def mais mën nañ ci indi lu bëri lu nga xam ne da permettre ñu xam ni kii kat la ñu jël la mu waroon am amu ko c'est pourquoi on parle de déclaration de patrimoine hmm. loolu tax ñu ni ministère dafa diis loolu tax ñu ni direction dafa diis parce que da ngay def déclaration de patrimoine bu ñu demee ba gis ni hmm. li nga am ëpp na la nga waroon am véritablement mën nañ la topp parce que yooyu de susciter ay interrogation ak ay enquêtes hmm. te enquêtes yi bu wéyee rek Mame Mbaye Niang dinañ dugal ci euh, fuñ ko fu wala dina rembourser mën naa la ko waaw euh, kii dafa mel ni li ñu cërale woon ci wàllu waxtu sax mu ngi xuus mais balaa ñoo jeexal dañuy wax aussi ci nomination yi nga xam ne ne meeku nañ ko saa yu nekk mercredi buy jub si ñu ñu tuddee ko le ballet de euh, Bassirou Diomaye fay yéen ngeen waxoon appel à candidature jamono ji mu mel nii da ngeen génn de. appel à candidature boobu. bu dee nekkit benn benn post lay doon. xam nga lu tax. lu tax mënuloo xeex man ak yow ñu ànd di xeex. Mhm. bu bañ gaynde gii dugg ci néeg bi. ñu fexe ba rey gaynde gi ma jël ñeneen nag yow mi ci defoon effort ma indi leen teg ni leen kaay ñu liggéey liggéey bi nga war a liggéey bu fekkee gëmoo projet bi yow gëmoo ko woon yow nekkoo woon ci projet bi da nekkoon ci leneen wala danga nga projet bi munoo indi sa CV indi que ñu jël à partir de CV ñu jël la dugal la loolu munul nekk xeexu Badar ñi ko xeexoon ñoom la ñuy def imam kenn du jël ñeneen ñu nga xam ne dañ doon xeex hmm. contre waa Badar jël leen def leen imam loolu du fenn ñi koy wax xamuñu lu ñuy wax et je vais écrire maa ngi bind pareeguma ci loolu pour leur montrer que dans tous les pays du monde foo dem vraiment ñi ñu def confiance fal leen muy les figures emblématiques yi nga xam ne ñoo doon défendre projet bi mais ñoo ñooñu ñooy porter projet bi munoo yow défendre projet ba projet ba taxaw nga ñëw ni da ngay porter dafa ñaaw sax ci kanamu figure yi c'est-à-dire ña doon seetaan nga xam ni mooy patriotes yi mooy sénégalais yi ñu doon gëm ay nit yu taxaw ay figures yu taxaw tey ñu gis yeneen figures yu ni ñun kat ñooy doxal la ñee gëmoon loolu yenuwul maanaa loolu kenn du ko def. est-ce que du yéen yéen yéen yéen a ko gëmloo ñi ñi parce que yéen a ko waxoon kenn saxalu leen woon leen. jamono bi ñu non on a dit certains certains mooy benn benn ci ñoom. certains certains mais yi gën a am solo. déedéet déedéet déedéet certains ne veut pas am solo. non certains mooy yenn yi. waaw ñenn man jàngalekat laa xam naa lu may wax c'est indéfini. Mhm. donc mënuloo ko dëkkal fenn bu ñu nee certain mooy yenn yi. Mhm. yenn yi bu ma neexee jël ñaar ñi ñii waa waxoon kenn mënu ci dara donc loolu la wax noonu la ñu waxee te loolu dina am fi léegi deux ans di nga gis quelques postes yu nga xam ne on va en compétition. non xam nga tey bu ñu ñëwaatee. par rapport ak postes yi ñuy wax parce que tey bu fekkee ne da na a ñëw ba pouvoir ngeen gis ne les réalité peut-être sans y a réalité on savait que. kuy xeex ba egg fenn fii ñi nga àndaloon di xeex ñoo war a ànd ak yow defarandoo projet bi mënuñu ñun fële la ñu gëm kat lee la ñu bëgg lee ñu bëgg am ñu ni loolu kat mënut a ne. Mm. ñooñu ni woon mënut a nekk ba ñu démb ñu nangoo tey seeni pexe jubul. moo tax ma ne nañ def attention sax si ñu ñuy jël ndax képp ku bañoon démb bu ñu la jëlee tey nga nangu sa pexe jubul te mën nga indi ndëgg sërëx ci biir li ñuy liggéey xam nga jël li nga xam ne da nga ko war a liggéey ànd kaak ay nit yu nga xam ne dañ ko gëm nga jël ku ko gëmul nga dugal ko ca biir mën na di jaxase maanaam di leen féewale di wax fii di wax fee hmm. loolu day indi jaamaarloo te loolu ñun nous sommes bloc soudé lañu euh, bee boo képp ku sa xel nekk loolu même bu ñu la jëlee moytul parce que loolu boo ko defee dañ lay découvrir te bu ñu la découvrir dañ lay génne suñu biir mais est-ce que aussi du du du lii yëpp yéen yéen a koy waral parce que aussi promesse de campagne est-ce que duñ doo leen ci bàyyi xel parce que boo nekkee ci opposition parfois day neex ngay promettre yenn yi mais au boo arrivé au pouvoir day xaw a day xaw a jafe bu si on se rappelle bien du discours d'Ousmane Sonko bi mu doon wax ne mën nañu gagner ensemble mais on va pas gouverner ensemble parce que moom dafa jàpp ne peut-être am na des postes yoo xamante ni ni dañuy def appel à candidature. dénkaane ki nga wóolu bu ma la wóolul mënu ma la dénk même bu fekkee am nga compétence bi. parce que li jiitu mooy gëm li ngay def am caractère ci li ngay def mën a doxal ci li ngay def. Mhm. am na ñu ko xam ne bu ñu leen joxee post tey man damay bëgg ndax damay xam ni am ñu caractère bi muy Ngagne Demba Touré quelqu'un comme ngañ Demba Touré mais xam nga dafa gëm projet bi. Mhm. da ci doon dox guddeeg bëccëg quelqu'un comme mon ami Dame Mbodj mais da ci doon dox guddeeg bëccëg gëm ko di ko défendre guddeeg bëccëg kooku bu ñu ko joxee poste dina def la mu mën ak lu mu pour réussir waaye ki nga xam ne moom gëmul woon projet bi dafa toogoon fële kooku boo ko joxee. bu échoué sax yow mënoo ko reproché dara mais li ma wér te wóor mooy y a des figures emblématiques qui portaient le projet bu ñu leen tegee le projet va aboutir. mais booy joxe booy joxe tamit est-ce que doo xool par rapport ak compétence yi nga xamante ni fa la nit mais ils sont compétents loolu mooy problème bi c'est-à-dire au fond un enseignant. Mhm. Dame Mbodj c'est un enseignant. Mhm. boo ko joxoon directeur rajo bi mu doxal ko xanaa xamoo Demba Ramata Dia. Mhm. c'est un enseignant. c'est un éminent journaliste. beaucoup d'enseignants sont devenus des journalistes c'est-à-dire. tous les corps de métier bu dee gestion rek la boo leen ko joxee ñu gérer ko parce que ils ont géré des directions d'école ils ont géré n'est-ce pas des postes ils ont géré également des séminaires ensemble c'est des gens qui sont en perpétuelle formation fu ne cof nañ fa looloo tax ma ni la ñoom mën nañ ko doxal ku nekk la ngay dem ba Touré moo boo déggee caractère am ak analyse am nga wóor la ni kii bu ñu ko joxee chemin de fer mu doxal ko même bu fa xamul dara xanaa xamoo ne le meilleur ministre de l' agriculture Farba Senghor la woon xamul woon dara ci agriculture le meilleur ministre bi ma xam ci forces armées Bekkaay la Bekkaay c' est un directeur d' il faut faire attention gérer ça veut dire être au-dessus avoir un caractère et faire de sorte que ñi lay ñi nga xam ne moom nga yilif ñi nekk si sa coupole ñu fexe ba di def la nga xam ni moom la ñu war a def ba pare nga mën a coordonner les activités mais nga mën ko fexe ba mu dox. Mhm. parce que doxal euh, bëgg a dem taxut a mën a dem mën a dem mooy tax a dem mën a dem nag mooy ki nekk ci kaw mën a fexe ba ñi nga xam ni euh, mi ngi leen di sant la mu leen di sant ñu def ko loolu c'est extrêmement important ba pare un œil contrôleur ci ñooñu ñëpp c'est extrêmement important. Mhm. ba pare mën a manager nag nga xam ni di nga xam problème mu nit ñi di nga xam euh, nan nga ko war a résoudre. Mhm. parce que le climat social d'un ministère d'une entreprise. donc parti politique il faut nga maîtriser que nga mën ko doxal sinon doo ko mën doxal. par rapport ak ak les nominations gis nañu le cas Aïda Mbodj ça suscite des débats DER Aïda Mbodj lañ fa def est-ce que aussi euh, DER soxlawul woon am ndaw boo xamante ni day gën a jege ndaw ñi pour xam li li nga xam ne mooy seen jafe-jafe. non Aïda Mbodj jege na askan bi c'est-à-dire au fond tata Aïda Mbodj mais mën nga ko teg DER amul benn problème parce que elle a l'expérience de gérer moom moo waroon bañ sax moom bu ñu ko waxee mu mais bëgg gu mu bëgg réew mi moo tax mu accepté loolu te ñun dañ ciy bëgg pour ñu jox ko mu accepté ko bu ko accepté ça veut dire qu'elle veut travailler et on va la laisser travailler xam naa mag bàyyi jaar na bàyyi ci réew réew mu dox xale ya ñoo liggéey ak seen doole waaye xelu mag moo ko doxal donc man yaakaar naa foofu elle réussir. est-ce est nekkoo leen aussi da leen di caser fenn rek pour ñu bañ a frustrer pour dem. parce que non non non y a pas de frustration possible c'est mhm. xam nañ leen. ay nit ñu engagé lañu lu nga xam ne lu ñu doon def xooluñu doyen abi mais mënul nekk di seenu ay affaire ci ay affaire ce qui est et certain mooy patriotisme boo ko bàyyi fi mu nekk ce qui est sûr et certain mooy aujourd'hui foofu ñu ko teg par exemple à la Sénélec il va être euh, n'est-ce pas un un un un doyen qui va pouvoir influencer la marche de la chose loolu rek lañ soxla neenaa la ñoom mm. nekk ñu ñuy liggéey c'est pas des techniciens mais ils sont à la direction cest direction da ngay wane yoon bu ko defee gars yi ñu jàpp ci. waaw mais du du euh, doo yaay technicien mais bu fekkee ne yaay wane yoon bi tamit faw nga am benn technique boo xam ne da koy am xam fan yoon ngay jubal pour gars yi mën la topp. loolu mooy management. fokk nga mën a manager. au fond boo ñëwee dañuy ñëw nga boole technicien yëpp comme Waly Diouf Bodian ni mu def waxtaan ak ñoom xool woo leen ci liggéey fexe ba xam fan la liggéey ba sooxee lan moo doxul fexe ba xam problème yi loolu en temps record. cerner problème yi joxe ay orientation claire yu nga xam ne boo ko joxee mhm. effectivement affaire bi dafay dox loolu mooy management boo ko mënee doo sonn mhm. en tout cas mu mel ni am waxtaan bi am na solo mbokk internet yi wax naa ko sànq ñoo ngi dalal ki nga xamante ni nii moom moo nekk euh, troisième adjoint secrétaire bu PASTEF mu nekk euh, Birame Khoudia Lo ñu doon waxtaanee li nga xam ne moo di wàllum actualité euh, waaw monsieur balaa ñoo jeexal kàddu gi le cas Mimi